tudde Moustapha yaa jëf lu jommal surafa daane nga mbëri sooga dem yam na xadiimal Moustapha yow mi ñu tudde Moustapha yaa jëf lu jommal surafa daane nga mbëri sooga dem sa tur wi wenn rawu ko sa waajurit kenn gënu ko sa askanit kenn gënu ko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 kon mee tafaa mbay mi tafaa li tax mu sangaay kemam madina géeg taayif kële tuubaa giléeg taayif gile meetar yi ñoo ko tollale kum neex nga dem na ba taar ba newoon ca Mustapha moo nekk it ci mi tafaa wir ga newoon ca mustafa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 moom ni mu defoon bis aw jiwoom daa woon moom aw jiwoom ba ñépp ñépp foog ne moom day daa di ji mu fab jiwoom jox nit mu def ko ab dundam dane ko xaalis nekku fi gerte fi am tama nga fee demal ca dencukaay ba fee jël ca tejaay ngir ñoo ci yam